asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci benn waxtaan wu gàtt rek jëm ci réew mi ñu bokk ak diine ji ñu bokk euh, daanaka lu xaw la sori nëga ni daaw muy ca tabaski ga ginnaaw tabaski tuuti def nañoon fi benn waxtaan boo xam ne bi da doon indi tout juste ay leeral rek ci kàddu yoo xam ne yi imam de la grande mosquée yëkkati woon na ko Euh, lañ ca wax la mu waxoon nit ñi dégg nañ ko lañu ñu ca waxoon ñu nit nit ñi dégg nañ ko euh, man nag boroom xam-xam yi damay préférer su may wax ak ñoom ci dara le plus souvent ñenn ñi moom duma leen indil aaya alquran wala di leen indil xadis ndax ñenn ña gënuma leen koo dégg dañuy def lu leen neex ña ca desit soo leen ko indilee du tax ñoom ñu nangu ko parce que ñoom bu ñu ko naroon a nangu loolu la ñuy jiital euh, ma dégg ko nag euh, ren itam ci korite gi mu waxati ay wax euh, yoo xam ne yii discrimination la discrimination li yées ci àddina la ndax foo mës gis deret di tuuru le plus souvent discrimination nga fa mu wax ni am na benn waay boo xam ne bii nee na dafa bëgg a nekk maire de Dakar foofu la wax ja tàmbalee loola lan la jotee ak xutba sax lan la jote ak xutba boo xam ne bii danga koy xutba ci bësu iid war delloo si jullit ñi war leen a yeesal war leen a wax lu jëm ci seen diine ak seen ngor ngay indi waxu ku bëgg a nekk meer ak ku bëggut a nekk meer xanaa ndakaaru googu yenn ruq-ruqaat yi dañ cee bokkul ñaata meer a fa nekk yoo xam ne duñu foofa juddoowuñu fa yaroowuñu fa kon ñooñu dañ caa bokkul bañu koy nekk foo nekkoon nga ni Paris pour les Parisiens moom nga ko nattee Dakar pour les Dakarois foofu nga jëkk a juume maire de Paris du Parisien ñaata maire ñoo mës nekk Paris yoo xam ne du ñu ay Parisiens yow nag ma ñëw laaj la qui sont les Dakarois ñan ñooy waa yi tey jii yow soo ñu bëggoon a génneel Dakarois de chose da nga jeex jeqi jeqar bi waat ba tàyyi soog a génnee Dakarois de chose foofu ci biir ndakaaru boo boole woon ñëpp def ci benn pot bala ngaa génneeb dakaar waa da nga génnee ba tàyyi ndakaaru googu tey jii boo fa génnee woon li fa ku dëkkut ku cosaanewul dakaar moom boo ko génnee woon boo moytul dootoo bàyyi ca ndakaaru dara ña dëkk Dakar cosaanoo fa ci bokk laay wax buñ leen génnee buñ leen bëggoon a génnee mooy gën a yomb génnee ña nga xam ni cosaanoo fa nga ne doo dem Fatick di fa nekk ilimaan kooku tontu bi du sori Sénégal gii moo yomba nekk imaam Sénégal moo yomba nekk imaam defe naa xam nga li may bëgg a wax foofu su dee lool dong la woon yonent bi sallallahu alayhi wa du am benn cër ca Médine su doon lool dong la Cheikh Ahmed Tijani du am benn cër ca Fass gee nga xam ni turam siiw na fa su fekkoon ne loolu dong la Alaaji Maalik kenn du ko may yaatal fii ci Tiwaawan gi parce que du cosaanam ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni mënees na leen a lim lenn li mooy borne parce que àdduna nag dafa weesu autarcie autarcie mooy tëju ci sa biir doo dugal kenn doo yaatal kenn loolu dafa xeewi de xeewi la def bu doon loolu suñuy doom a ngi ci bitim réew doomi Sénégal ñu jox leen fa ndombo tànk yoo xam ne yii yu gën a kawe ca réew ma lay bokk Sénégal kan moo fi xamul turu Ramayad jox nañ ko poste ministère kan moo fi xamul turu sibet njaay cër bu gën a kawe ca France bokk na ca kon loolu su fekkoon ne dañ ciy joxe ay exemple mën nañ cee lim ay dizaine ak i centaine yoo xam ne à travers le monde ay doomi Sénégal ñoo fa dem ñu jox leen cër yu kawe nga ne majhulul xaal moo tax dédét sharia waxul fo majhulul xaal jëm foofu nga ne majhulul xaal mooy ku ñu xamul ndeyam xamuñu baayam déedéet tekkiwul loolu tekkiwul loolu imaam majhulul xaal mooy mbir mi ci diw mi xamuñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dem Médine xamuñu ndeyam xamuñu baayam wala boo xooluñu ndeyam xooluñu baayam jàppew ko ndeyam jàppew ko baayam jëmmam ja lañu jàpp kon nit ki misaal bi ñu mën a joxe ci majhulul xaal masalan koo xam ni ki waxtu julli dafa jot mu dugg ci biir kër du ngeen ma may fu ñu jullee mel jëmm ju yiw yor sikkim bu rafet sol yére yu yiw ŋàbb sax kaamil ci loxoom yor kurus xamuñu turam xamuñu santam xamuñu fu mu jóge ñaan ab sijaada daal di lal kooku majhulul xaal la li jëmmam ji rafet rafet li muy am am hayba majhulul xaal la kookay nit ña duñ ko jiital parce que xamuñu ndax zahiram bi mooy baatinam kon loolu mooy majhulul xaal waaye majhulul xaal du li nga ko firee déedéet tekkiwul loolu sori na ak moom xaw foo jëlee boobu définition waaye tekkiwul loolu bërëb boo fa demee yàgg fa baax fekk la fa ñu xam la fa waaye ma ni ñaata jàkkaa nekk ci biir dakaar yoo xam ni yii ña jiite juddowuñu fa yaroo fa màggeew ñu fa ñaata boo ko doon wàññi ci ñi nga xam ni ñoom la nga wax ne ñooy ay eh, suus ca dakaar duñ fa duñu doon asaka ja nee nga fukki penc yeeg ñaar kese kese ñoo am sañ-sañ fal imaam xanaa kon xamu leen chartu imaama kon xamu leen chartu imaama déedéet xamu leen ko bu ngeen ko xamoon du ngeen wax loolu du ngeen ko xam du ngeen ko du ngeen wax loolu dikk leen ci historique gu histoire grande mosquée de Dakar boobu moom boo tax sax ngay wax ndax yeneen imaam yi moom béywee na mbuus foofa ñeneen ñaa ngi fay fali imaam yu yu bokkul ci ñi nga xam ne ñoom nga xam ne ñooy suusu Ndakaaru waaye grand mosquée bi indi coow li wax ci moom boobu ngeen wax ne kenn du fa falu bokkul ci fukki penc yeeg ñaar yéen seen tuutee ca ne nañ waxante rek te yàlla tax deux cent vingt millions la ci état du Sénégal def en son temps ville de Dakar mooy mairie bi def ci cent douze millions communauté libano-syrienne mooy lib naar yooyu fa nekk suñu mbokk yi trente neuf million lañ ci def collectivité libu mooy ñi nga jàpp ne ñoom ñooy cosaanu ndakaaru cinq millions lañ ci def juróomi millions xeebaluma leen ko waaye ña nga xam ne juddoo ñu fa yaroo ñu fa màggew ñu fa di ay naar yu xonq coy ñoom trente neuf millions la ñuy defee kon sept fois plus que li ngeen li ngeen joxe yéen bokkul ak apport yu ñeneen ñàkkul jili Mbaye ci en son temps ñàkkul Ndiouga Kébé en son temps ñàkkul euh, euh, keneen ak keneen ku ci am yéene kon mbir mi bu fekkoon dañ koy xool ci pourcentage dañuy wax ne kon dañuy ñeneen kon ñeneen ñe leen ci ëpp sañ-sañ xanaa naar yi kon ñoom sax 39 millions yooyu ñoo leen wat ñoom xanaa ñoo leen di wat kon te lii may wax nag ku ko weddi nanga dem ci benn texte boo xam ne Abdoulaye Mokhtar jóob moo ko signé lii ma wax nii ci texte boobu laa ko jëlee fa laa ko gëstoo ji dafa am loo xam ni nag faaw ñuy mayante cër ndax mbir mi nag du ab xam-xam du juddu du alal du lenn nag loo xam ne warees na ko mën a imposer nit ñi pour di ko def muy règle déedéet du règle mbir mi daal yar la ak teggin ak worma yar teggin war ma mayante cër bërëb bu nekk ña fa nekk dañoo war a nawlonte critères yi nga xam ne nag ay critères yu erroné la yooyu dañ ko fi war a jëlee parce que su fekkee ne dañuy wax ne dañuy woote lislaam di wuyoo lislaam lu ñuy atte te nga xam ne loola ca lislaam la aju dañ ko war a atte norme islam li nga xam ne nag moom ay cosaani maam la ak i ndono kooka moom sunu yoon nekku ca waxuñu ca waaye li nga xam ne daal lislaama ko moom li nga xam ne société bi ñoo ko moom ay maire ak yu ni mel loola moom soci population yi ñoo war a décider seen bopp donc dans un commun accord ne lii moo ñu doy moom lañ fay def te nag jàpp naa ne dana dañ su fekkee ne loolu nga jàpp ne mooy sax incha allahu àddina dina mës a dox ba ñu ne lii moom dootul dox parce que nag lu dul dëgg moom du wéy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.